Youssou euh, coowal avion bi dégg nga li ci Pape Sène wax dégg nga li ci euh, Métal wax euh, mais jur na coow ci ci ci réew mi li <laughs> li li li maître Pape Sène bañ a dégg Sénégal yi aussi jàpp ne du priorité. Mhm. alors li jur coow ci réew mi masse dafa bëri. dafa bëri. Mhm. dama jàpp ne que yàlla daf ñoo nattu depuis 2012 ba tey heure bu ñu xëyee ñu sànni ñu benn yax. ñu seeñu seeñu seeñu ba sonn ñu indiwaatal ñu beneen yax mm-hmm. nguuru Macky yëpp li ko marqué mm-hmm. moom mooy ces genre d'épiphénomène mooy ñu mm-hmm. toog à un moment donné ñu génne benn sujet boo xam ni day masquer totalement l'essentiel ñu toog di ci discuter parce que dans une république normale l'avion présidentiel ne devait pas poser un débat normalement normalement parce que le principe kenn du ko contester qu'un président de la République doit avoir dafa war a am benn avion loolu kenn mënu ko contester man mënu ma nekk un socialiste de souche mhm. ma gis ni que Senghor amoon na ko Abdou Diouf amoon na ko mhm. Abdoulaye wadd amoon na ko ma toog ma ni Macky amu ci droit mhm. donc je veux sur le plan du principe y a pas de problème mais dafa fekk ni que ki ñu ko séqal benn genre nit la koo xam ni entre li muy wax ak li muy jëf c'est diamétralement opposé loolu moo tax man ñaari jàngat laa ci am. mooy ñaar yan. première jàngat. Mhm. mooy d'abord nguur gi nga xam ne ne que moom la ñu am dafa yàpp sénégalais yi. déet moom mooy première jàngat gi ma ci am mooy ñii dañu yàpp sénégalais yi. Mhm. te soo ne yàpp rek mooy absence de respect total. Mhm. même pas partiel total. parce que su ministre porte-parole du gouvernement génne di ak askan. war leen jox ay information yoo xam ne da leen di gindi. seen làq-làq yi ñu si amoon képp koo xam na ni que sénégalais nga am droit à l'information en sachant ko constitution Sénégal moom moo consacré mhm. le droit à l'information absolument yow nga ni doo jox nit ñu toutes les informations yu ñu soxla parce que da nga jël benn concept surtout boo xam ne yow mii sax moom Oumar mhm. Gueye suñ ko interrogé woon par rapport ak concept raison d'état ou secret d'état mënu mhm. ko théoriser Mm-hmm. moi je suis philosophe je travaille sur des concepts mm-hmm. moom munu ko conceptualiser mm-hmm. mais comme xam nañ ne que lu la neex mën nga ko ci làq man nga sax créer sa budget lancer ton marché def lu la neex su la neexee nga ne ko secret d'état avion présidentiel ban secret d'état la am le prix le prix man je peux comprendre mën nañu ah wax ñu à l'intérieur de l'avion chaise u président de la république fan la nekk ñu ne loolu mënuma fa dugg parce que secret d'état la mhm. mën naa ko comprendre kañ lay kan mooy dawal avion ba mhm. ñu ne secret d'état la mën naa ko comprendre mais lu coût tout le monde se combien Senghor avait acheté à l'époque la pointe de Sangomar mhm. tout le monde sait combien Abdoulaye Wade l'a acheté malgré d'ailleurs polémique bi mu créé rek pourquoi ñoom mënuñ ko jusqu'à ce que aujourd'hui fi ñu ne xamuñu ndax 60 milliards la ndax 100 milliards la alors que ñoom am nañu toutes les informations te man li ma wóor mooy fay nañ ko ba pare Hmm? fay nañ ko ba pare. Ah, mais pourtant avion bi non ñoom nee nañ fayuñ ko moratoir la bon. moom mooy première jàngat bi ma wax mooy absence de respect. Mhm. te loolu du tey la njëkkee. parce que absence de respect maa ngi commencé ci un président de la république yow nga théoriser une gestion sobre et vertueuse mhm. tey nga nekk dans une gestion très vicieuse et luxueuse mhm. vicieuse et luxueuse alors que sobre et vertueuse nga promettre nit ñi mhm. parce que l'avion présidentiel au moment T où man bi may wax ak yow ak sénégalais li ñuy dund mhm. du leneen lu du luxe luxe recherche de luxe ak recherche de confort mhm. li tax ma wax ko mooy ñaari mbir lan moo xew entre démb ak tey pour que président de la république mën a changé moom confort de voyage am lañ ma wax même su fekkee ni sax Pointe Sarène dafa am problème mhm. mais nañ may wax bi muy dem fii France ci sommet bi Macron convoqué woon mhm. mais lan la jël ak nan la fa demee mhm. donc c'est une interrogation nañu wax moom nan la jël ak nan la fa demee ak qu'est-ce qui s'est réellement pensé pour que subitement ñoom ñu jàpp ni dañoo war a am avion de commandement et ils insistent tous par complexe sur le terme commandement on n'a pas besoin vous êtes président de la République mm -hmm. naturellement l'avion c'est l'avion du président de la République absolument le deuxième élément mooy tey dañoo monter une structure boo xam ne ñun ñëpp ci fier mhm. muy Air Sénégal International si vous vous rappelez beaucoup d'hommes politiques ont théorisé ici mm que président de la République dafa war a joxe l'exemple mhm. il lui reste deux ans ou trois ans. Hmm. avant que mandaam di jeex. totalement. Hmm. mais lan moo ko mën a tere moom ci boppam. Hmm. mu def la promotion de Air Sénégal International. lan ma j'aurais compris que tey fi coow li tollu tey pour que ñoom ñu mën a rattraper absence de respect bi ñu am. vis-à-vis des sénégalais ñu jëlaat l'avion en tant que tell reverser ko ci flotte Air Sénégal International. loolu. moom moo njëkk a jaadu. Mhm. ça c'est le premier jàngat bi ma ci def mooy absence de respect deuxième jàngat gi ma ci def. Mhm. mooy ñi ñu ko seqal nii muy Macky ak ñi mu àndal. Mhm. gis nga ñoom ñu la wax tey soo ko jàngatee suba nga gis ni que c'est le contraire. ah bon je te juste quelques faits. yoo xam ni ñoom ci seen bopp ñooy tomber dans leur propre piège. fii la ñu taxaw ne dañu leen di defaral benn terre. Mhm. le coût du terre initial bi ñu annoncé ak aujourd'hui ce qu'on a c'est le flou total. ok te terre boo xam ne presque on y a mis d'après ñoom seen chiffre. Mhm. je prends même pas les chiffres que nous nous avons ñoom seen chiffre. Mhm. on y a mis presque sept cent milliards. boo xam ne soo ko rombee Colobane. ñoo ngi ko bâche ak poussière baa ngi ci poussière u Dakar yépp fa lay réfugié wu. ci terre bi ci terre ba. sept cent milliards. te bi mu koy commencé on lui a dit que c' mm-hmm. une dépense de prestige. 7 mm-hmm. milliards diggante Dakar ak Diamniadio. je te dis que non seulement dépense de prestige la. Mm-hmm. mais li olof di wax yàq. soo déggee yàq moom mooy terre bi nga xam ni moom lañ fa def parce que avec 700 milliards mënoon nañu presque régler le problème ferroviaire au Sénégal. on l'a pas fait ñoom dafa jàpp ni que moom mooy président Macky Sall ak tout ce que cela implique en termes de. de prestige que il faut il faut man ma génne dara loo xam ne musu fi am train mas na fi am mais terre musu fi am mhm. non on ne gouverne pas un pays avec ça en pensant que il faut faire dans des dépenses bling bling mmh. dépenses bling bling dafa am ay limites mhm. mën naa comprendre nit mën ko am mhm. mais am na ay limites priorités dafa am te tey soo xoolee l'avion présidentiel quel que soit le coût même si c'est un milliard maître même si c'est un milliard mais que le président de la république comprenne que c'est un milli un milliard là. Mhm. am na feneen fu mu xaj. mu xaj te ma joxaat le deuxième exemple. fi mu mhm. xaj. Mhm. tey de tey jël nañu décision ne dañuy prolonger bac. dañuy prolonger BFM dañuy prolonger CFA. Mhm. tous les syndicats d'enseignants sont inquiets pourquoi parce que dans certaines zones su tawee. Mhm. xale yi ci abri provisoire lañ nekk. Mhm. au Sénégal. pour l'information. il y plus de six mille abris provisoires. six mille abris provisoires. yow nga jël trente milliards ou bien soixante milliards. c'est selon nga ne da nga koy jënd. benn avion pour ton propre confort personnel dogu ma li ci loolu ma euh, question ma lay relancer rek euh, dëgg naa ci ñoom am ku ne euh, mais jëndum avion bi ab ah, président foog moom avion cent milliards yooyu mooy permettre président avion bi mu mën a dem démarché ji dem uti xaalis dem indi xaalis ci réew mi gis nga mass mhm. yàgg nañ fee indi xaalis ci biir réew mi mhm. fekk avion présidentiel duxul xaalis mhm. yàgg na fee ñëw bi muy dem di wuy bi ñu wuy ji ñoo Macron mhm. ci sommet bi ñu defoon pour relancer les économies africaines mhm. et pourtant on peut même se poser la question de quelle économie on tente de relancer parce que l'avion ci fan lañ ko jëndee Airbus Airbus la terre fan lañ ko jëndee Alstom Alstom Airbus on tente de relancer ban économie. Mhm. française ban économie la ñuy tenter de relancer. il paraît que y a des donc c'est des questions yoo xam ni fondamentales. et ñoom au lieu de répondre. Mhm. bon ils se réfugient derrière une forme d'arrogance. Mhm. boo xam na ni que mais ce n'est même pas sénégalais. soo nekkee ak ay nit. ngeen di bokk loo xam na ni que yow ëppale woo leen ci. dañ la jiital rek mais ëppale woo leen ci. su problème boo xam ne ni que dafa engagé la vie du pays posé woo mhm. ku nekk si ñoom am na droit joxe ci xalaatam jërëjëf parce que jete avec eux mhm. bi ñuy nekk avant 2012 ñuy wut le pouvoir mhm. amul luñ fi yëkkut Abdoulaye Wade par rapport ak justement l'avion et le train de vie de Karim Wade avion avion privé bi Karim Wade doon utiliser ñu estime ko à presque douze milliards mais les gens de l'APR sont très mal placés pour nous dire que lii du dépense de prestige. parce que à l'époque mhm. ñoom ñoo génne le chiffre puisque ils étaient avec eux. ñoom ñoo génne le chiffre alors pourquoi yow li nga li nga mhm. di nga démb nga bëgg ko nangu tey. en nous essayant de nous faire croire mm -hmm. que oui c'est une question de sécurité ban question de sécurité jënduñ fi Macky Sall jëndu fi benn oto may bat ñaata lañ ko fi jëndee kenn xamul presque un milliard mm-hmm. oto ba demul fii dëccu yal na ko yàlla yërëm ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng mm-hmm. doo daan rek la yeeg oto ba oto ba lakk doo daan mm-hmm. su fekkee ni oto mënul affronter doo daan oto ba lan lay affronter